egsi na fii ci Masaalikul Jinaan kon nag yéen a ngi ànd ak Tawfekh Production ñi leen di sëñ Mourtala ànd koog sëñ Sidi taalibe Cheikh Issa kon ñu leen xamal tey bis tey sëñ Mourtala na Masaalik ñu ngi nii Masaalik a ngi seen jumaa ji nii a ngi seen Jinaan sëñ bi na kon nag bokk taalibe yooyu ñëpp na waaj sëñ Mourtala na jërë mu àndal geneen dëgg dékoor ba buntam ya ak na mu yañ njeeg weeram ya wër ca xubaam ba set gaag selam gala booleeg set dug ye ca biir ba liggéey ba wér waloore du gis nga min baru oor ba tapeem yu nooy yéen ko maane fa tirkilal ko ca ba sonoom ba set ga bu jolle na dam ga wees dëkku yoos ba te istijoo yamu àndal noppal na gaayu peres ba fu waay taxaw nañu lay gis kamraaya war na ko fépp te kenn du laaj fu waxtu fu tollu gis motoram ba xurum ba set na te yaatu war na ëttam ba soroor ya nee nañu colle kat ca kaw juróom di ba man daal billaahi wallaahi ii mooti naa ci sëriñ ba ngir bi tabax li ci dem ci milliard te yem ku du Bamba du ab état ko financé du it di banque Europe du bayti maal ya ca faasit du yooyu ko wet du yu koy ba muriidi ak ña ñu xandal ñu jiite leen ni fa Tuuba ñoo saytu biir Séba Bamba defal ko Bamba fa gox ba ngeen Dakar dafa jooyoon ndax am mettiitu ca xol ba te sëñ ba ba fa jaaroon te yàlla yan ko yoonam ñu koy sonal di ko tiisal te koy mettiitu fa nii ñaari guddeeg yu siiw la ba maaya xal isoor ba waaye walaay nii ấy người phòng tay luôn luôn Dumay masalik ileg la wifi na karwacha baba Bisig gileng gabu aksen kanfa ahmadu banday Tabis lanang bunu wajar kuman tatew cajatay da Kondoni ak sumabani nanyepunyo cadaloba Cees ak Fatick Matam ak Ndar Kaolack Louga goxi Tamba Kolda Wakaasa Sédhiou wa Kédougou dëkku or ba Kaffrine li wajul belu mboolem seen gaalu nam wi si Bamba Afrique Asie Europe ak Amérique nit demi rabba Kaffrine wa Diourbel mboolem Sénégalu nan wi Bamba Afrique Asie Europe ak Amérique fu nit gëme rabba woo nañ la woo ca bés ba man nga teew si fa ca septembre wi la lay doon ñun set bisu mbég sunub sëriñ sunu yaakaar ka wuutu maam jafa tuuba Seex Muntaxa mu basiir murid bu dëgg ca xol ba sunub sëriñ sunu yaakaar ka wuutu maam jafa tuuba Seex Muntaxa mu basiir murid bu dëgg ca xol ba moo jiitu bopp ya xal ko mu def Dakar ay bis ba saal ilaahu bu boobaa nga xam ne kenn du bànneex ku def ndegam na sa mbégte daraw sa mbégte ba booba ku def ndegam na xaru xel nga jooy ba natt la xambaay yàlla nañ ko fekke tatal ko te teew ko yàlla ca yool ba yàlla fay ñu ko fay ko ñu leen dugal ci liggéey ba ak képp ku ca def la fu nga jot bi fu fay ba amina amina salal ilaahu na koy dar fa war na ñor